faudra les améliorer. Mais la politique de l'élève, ça marche très bien. Ça marche très bien. pitax yeeg yëpp may ginaar yeeg xar yeeg bëy yeeg euh, korñaaña yeeg yëpp rek a ngi dox mais nag aliment amul te aliment yi cher na parce que agriculture moo war a fournir aliment mais doyul donc li ñuy wax te loolu politique agricole bii ñuy doxal Sénégal man maa ko bind de man maa ko bind maa tas caisse de péréquation wax ne autosuffisance en riz nañ dem ci vallée bi où nous avons plus de cent quarante hectares ah deux cent quarante mille deux cent quarante mille hectares yoo xam ni à l'époque quarante mille rek lañ ci aménagé woon et on ne produisait que sur les vingt mille mais boo demee boo traversé léegi dex gi dem Mauritanie nga gis ñoom la ñuy bay nga xam ne mën naa nekk j'ai reçu hier euh, des femmes euh, euh, au à euh, qui participait à un séminaire de l'UNICEF pour la promotion de l'action des femmes rurales. Il y avait notre Sokhna Mbodj là, du Waalo, qui a une liserie, qui a, qui fait de, de l'agriculture euh, au niveau du lac de Diama. Mais c'est possible. Et à l'époque, j'avais dit, on tue la caisse de péréquation puisqu'ils avaient un déficit de 15 milliards l'an. mais en réalité c'était une sorte de caisse noire du Parti socialiste. Et quand j'ai déposé mon rapport, c'était Abdourahmane Sow, je crois, qui était directeur. Ils ont appelé Mayoro, ils ont dit mais yow sa dof bi nga fi yónnee mu ñëw ci kanamu Collin naan ñu 15 milliards de déficit. Ça, c'est ce que Baba Dioum a écrit dans son livre. Donc, politique agricole bi moom xam naa fi may jaar ba ceeb bi sakkan puisque indi naa ko avant may nekk ministre du commerce sax l'autre question c'était quoi à ah, quand le plan Mané il faut faire des micros non Mané donne-lui après tu me mets un Kleenex autour donne-lui bismillahir rahmanir rahim la hawla wala quwwata illa billah na seen émission def nii lañ ko di am ci yow mbégte bi ñaari suñu borom fasaa ak ñu yor xam ak ma ji na ko wa ma li aussi xikma ak xam ko ci gannaaw loolu maa ngi tudd na xamal wàññi je suis vecteur de publication de la Senctv.info qui existe depuis 2009 à l'Internet et Thiessénégal.com qui existe depuis 2018 à l'Internet dama am ñetti question question yu simple la c'est vrai que expliqué nga ko ci biir débat bi bu ma sañoon mënuma laa exiger nga defal ma ay réponses yu simple mais bu ma sañoon mu nekk ay réponses yu simple nous sommes moins de dix mois pour vingt quatre février deux mille vingt quatre est-ce que yow candidat bi loolu muy def deuxième question bi président Macky Sall la concerne waxu si dara lu leer ñëw ñëw en personne est-ce na droit def troisième candidature yow sax sax sa collègue de bilan ñëw en personne sans nga bañ a xaar mu yëy si wala mu bañ si jàpp troisième question bi wàllum question bi président Macky Sall dara woo nga ànd ak moom liggéey ak moom tey bu fekkente ne tey dañ ko defal bilan ak jéego yu ñu def Sénégal par rapport projet yi nga xamante def na ko fii est-ce que yow euh, da ngay gis la euh, wala noo ko jàngatee. jërëjëf. prépare pour Donc, vous avez posé trois questions simples. Vous avez droit à trois réponses simples. Est-ce que Idrissa Seck sera candidat à l'élection présidentielle de 2024 Est-ce que réponse bi mën naa nekk question ni ma ko sentir dama koy def question soog la tontu lu simple est-ce que yow mi laaj question bi man ngaa xalaat élection présidentielle nekk Sénégal ex Idrissa Seck di dund dese bakkan am wér ak cawarte te du ca bokk xalaat nga loolu wala xalaatoo ah xalaatoo ko de est-ce que xam nga kenn ku mën a xalaat loolu kenn rek ku ko mën a xalaat waaw léegi nag réponse bi gën a gàtt mooy waaw ñaareel ñaareel bi deuxième question ndax Macky Sall am na droit xam nga lu tax société am société li tax mu mën a am mooy dañuy am kuréel goo xam ni lu mu dogal nga ànd caag nga bañ caa ànd danga nga cay tënku bis bu ne nga dem États-Unis Cour suprême ba génn décision goo xam ne ñu bari dañ naan lii ay balla poy de la ay ay yu ñàkk yu amul benn teguwaay la wante doo gis benn américain bu jodul tënk Sénégal benn kuréel mooy wax ku sañ ak ku sañu la bokk mooy conseil constitutionnel mais li boroom xam-xam yi wax te muy ay boroom xam-xam yoo xam ni seen xam-xam du xam-xamu caaxaan ku mel ni professeur Serigne Diop lu mu la wax ci constitution takkal téere fii ba Koulikoro fii ba Casablanca fii ba Johannesburg ku fi jàngale droit constitutionnel laaj nga ko bi bis nga gàtt mu gàgganti la Serigne Diop nee na wala boog sëriñ Jóob nee na ma amul droit te amul benn porox ndoll bu mu jaar pour am droit wax na ma ko loolu leer simple troisième question nga ne bilan bi bilan bi xam nga fii laa toog ma ne leen Euh, man maa waxoon ni la vision de Macky ne dépasse pas Diamniadio waaw léegi bu ma rombee Diamniadio romb Fatick romb Kaolack traversé pont wu te daanuwuma ci ndox mi waaye vision bi dépassé na Diamniadio la du question tag c'est la vérité et je pourrais fair la même chose vers le nord traverser Rosso te duma fa fanaan samay légumes di nëb wala samay màngo yi jóge Casamance di nëb loolu bilan la mais billan bi li ma ci gën a neex mooy ndox mi ndox mi ak piste dafa am ay chasseurs libanais yoo xam ni rëbb rek mooy seen métier ma tase ak ñoom réserve animalière de banja ñuy waxtaan xamuñu man maay kan ñu ne ñoom yàgg nañoo rëbb ci àll bi mais ren bi ñuy rëbb li ñu fi gis ci ay forage ak ay tëli ak ay piste ak ay espace aménagé musuñu ko gis ci Sénégal électrification li ñu ci gis musuñu ko gis bi fi Wàdd nekkee électricité bi Senelec xuy kamaj lañ ko tudde woon parce que man maa ko tudde woon xuy kamaj bon mais léegi on a quand même assez de mégawatts donc le bilan il est excellent du point de vue matériel du point de vue immatériel il peut être amélioré sur l'indépendance de la justice, sur la transparence des rapports de certains corps de contrôle, sur l'implication de la famille dans la gestion des affaires de l'État. Voilà. Mais globalement, c'est un excellent bilan. Mais je peux faire mieux.

xanaa jatara la yónni xanaa yaa ko yónni alors